ay mbedd yu yàqu ay kër yu diig ay njaboot yu tasaaroo ay jumtukaay yu naax saay ci diwaanu Touba mbënn mi def na fi ay jéeya ay jéeya yu nga xam ni jéggi na dayoo ay kilifa ay njaboot ñëpp di ñaxtu ñaxtu yu tar teg ci wane seen i jafe. waaw ndox mi de moom sax nawet nii la dunde dundee ak moom wax dëgg sonn nañ nag sonn nañ trop bu ñu amoon kuñ ci jàppale daal moom wax dëgg yàlla ñu jël ah kilifa yi dañoo ngi leen di ñaax rek pour ñu jàppale ñu dimbale ñu te xam ne ñun ay néew doole lañ doole ji bari bu amoon ku ñu jàppale daal dimbale ñu defaral ñu ko ndax mënuñoo dem fenn te si biir mag a ngi ci àll bi amuñu doole loolu moo ñu des fii pour defar kër ndox mi daal bari na bu ñuy añ ci kaw lal yi la ñuy añ bu ñuy reer ci la ñuy reer bu ñuy ndékki ci la ñuy ndékki ay jigéeni wirut ñoo fi nekk ñoo xuus tey buñ matoo woon duñ xam nu ñuy def suñuy gone dañoo bari góom góom ndox mi yàq na yaram yi ba lépp am na ay góom nun daal fi mu ne nii moom li ñuy dundee moom métti na ku nu dimbale daal moom lañ bëgg bu baax a baax a baax yow dem nga ba ca waay wa gis nga fa ñu toggee noonu cin li dañ koo teg ci kaw euh, kaw kii ci lañ ko teg di togg xam nga ne kaw cin ku ca def sa cin di togg xam nga na metti na waaw buñ paré ci lal yi moom la ni añee fi la ni reere gis ko ko ni sama ni ak jàng bi awma pare waaw ku ni dimbale daal moom lañ bëgg tey mënunoo génn ndax wër nañ ba sonu amunu ne lu yaas amunu abbu amunu nu na kon nag nam fi toog rek ak yàlla ak sëñ Fallu ba sëñ Fallu fekk lu fi parafe fa di gis nga ko metti na de mhm. ci kaw lal yii da la ni añee ca la ni reere ci ndox la ni tëdd ci la ni a borom kër sa doom la waaw sama dooma maa ko jur sama borom kër te nii bii la nekkoon daa wàcc liggéey léegi man dong maa fi nekk ak xale yeeg moom xale dong la jaaxal na ko trop waaye amut pexe heure bu ñëwee bu xëyee tiim ma ci lal bi ah waaw mière ma ne ko ah bàyyi ko ci loxol sëñ Fallou rek fii pulaa ginaar la mooy ginaar yëpp dee na fii fan téeméeri ginaar la fi nekk dee nañ hmm? waaw waaw pulaa mi ngi dama daa yar ginaar ah néegi de moom moo fees rek baa génn nañu lal yeeg yëpp tele ba yàqu na hmm. télé bi ndox mi ci dugg waaw ndox mi ba mu jeex wax dëgg yàlla fan yi yëpp samedi ba tey jii ci ndox mi laa dëkk sama néega sama wer ndaay waag yëpp ndox la woon waaye fi mu ne nii wax dëgg yàlla sant naa yàlla bu baax sant sëñ Fallou waaw sappoor yi wax dëgg yàlla jàmbaar luñ man lépp def nañ ko ci ba def ci loo xam ne daanaka mënuñu ko sax waaw man daal maa ngi leen di sant di leen ñaanal di ñaan yàlla boole nu taxawu boole dimbalu gën noo saxal ci ndigal sëriñ bi ndax lii lépp xéewal la rek xéewal la ñu sant ñu dellu sant yàlla bu baax baax a baax rek di ñaan rek ñu gën ñoo dimbale eh, ci doole sëriñ bi waaw ndax noonu dañoo dikk dañoo jaayante dikk ci sëriñ ci dëkk bi te fasuñu yéene tuxu fasuñu yéene jóge fii dëkk feeg waa kër sëñ Fallou mi ñii waaw Baye Cheikh Ibrahima ak waa këram jàppale ma jàppale koo xamante ni jàppale na jàppale ko keroog ba ma ko jàmbatee la lépp saafaroo préfet bu Mbàkke Makhtar Diop sol dàllam ànd ak ay service dem xoolal boppam jafe-jafe yi nga xam ne askan wi ñu ngi koy dund rawat ci dëkk bu sell bi di Touba. waaw tey dañ ñëwoon euh, def euh, def benn tournée tamp euh, tànku nemmeeku comme ni nga ko waxee ànd ak sous-préfet arrondissement Ndam ak mairie Touba ak service technique sapeur pompier ak yeneen service technique yi pour que ñu xool situation jafe-jafe yi nga xam ne taw bi indi na ko taw bu bëri bi fi amoon temps yëpp. indi na ko si Touba ñu xool euh, euh, action yi nga xam ne matuwaay yi nga xam ne sapeur pompier ñi ngi koy jël depuis le début fan nañ si toll est-ce que seen doole doole bi ñuy yor ba léegi may na leen nit ñi nga xam ne kër yi nga xam ne ndox mi woon si biir ak koñ yi nga xam ne ndox nga fa woon est-ce que doole boobu ñoom yor nañ ko ba léegi te doole boobu doy na pour que situation bi nu mu toll ñu régler ko te loolu constaté nañu né nekku ñu situation inondation mais ñi ngi ci situation jafé jafé ndax kër yoyu ak koñ yoyu dañu nek ci li ñuy wax dans des zones inondables des zones non édificantes donc ñu mel nonu li ñu mën def moy gannaaw li sapeur pompier di def ci koñ yi moy fexé ba pompage yi également ñu gën ko orienter fofu ba nga xamné ñi nga xamné ne mën nañ leen jappalé génne leen ci ndox yi ñu génne ndox yi seen kër ñi nga xam ne jàpp nañu ne même kër ga ñu nekk bu ñu génne woon ndox mi ñu toog fa sax risque la ñoo ñu jàppale leen ñu am fenn fu ñu leen reloger am na ñoo xam ne identifié nañu te tey tey tey dinañ am foo xam ne dinañ leen fa dinañ jël matuwaay dugal leen foofu. leneen li si des moo ñu jàpp ne rek euh, li ñuy def nii liggéeyu état la te ñu ngi si cadre plan Orsec donc euh, bu ñu si nekkee rek fenn foo xam ne yaakaar nañu ne jafe-jafe mën na fa am. ci nawet bi ndax njortu nañu ne nawet bu métti la dañuy sol suñu dal ñu dem fa sous-préfet def na ko ñu ñëw complété ko ni ñuy def ni noonu la def Mbacké te feneen fu am ci arrondissement également noonu nañu noonu la ñuy taxawee euh, sëkk xam nga sëkk amul amul kenn ku koy ku koy jëfe jàpp ne solution durable sëkk fuñ ko def rek dañuy jàpp ne solution en attendant la yéen xam ngeen ne programme assainissement Touba Touba ak dëkk bu mag la dëkk bu yaatu la donc problème assainissement du tay nga yeewu rek nga defar ko Amna djégo yu bëri yo xamné état bi def nako, amna djégo yu bëri yo xamné amna ay association yu si yëngatu mais di compléter li état bi di def mais non rek lay wéyee ba nga xamné dinañ ko matal mais en attendant ak euh, magal bi ñuy dëgmal, il faut que ñu jël ay solution yo xamné japp nañu né dina gëna a oyofal nekk nu nit ñi ci hivernage. Wa sindi indi ndimbal li ñu mëna xaar xam nga président de la ville wax nako. bu féké amna jafé jafé yo xamné dafa laaj ndimbal yooyu dinañ ko yónnee Dakar bu ko defee euh, matuwaay bu ñu si war a jël rek ñu jël ko mais mën nañu jàpp ne li ñu jël décision déjà jël ay famille génn leen dem dugal leen ndimbal li commencé na voilà. Mbacké euh, jaar nañ fa comme ni ñu jaaree nii euh, commune de Touba ndax Mbacké aussi xam ngeen ne am na ay zone yoo xam ne mën nañu ne ndox mi fay wàcc di fa taxaw dafa am dayo

bu ñëwee am na loo xam ne dina leen ko yàqal mais ñoom ñëpp dinañ leen recenser ba xam ne loo xam ne jar na jàppale jàppale boobu dina dina wàcc si si mu tombe ab kuréel nekk ci dëkk bu sell bi di def kéemtalaay kàttanam ngir saafara jafe-jafe yi Touba ca kanam di def ay jéego ci yenn ci ay koñ waaye xalangu dajul fépp taxit askanu Touba jamono ji ñu ngi xaar nguuru Sénégal mu indi ci ay saafara na mu gën a yaatoo ak na mu gën a gaawee.